哇。

fii kii liggéey sax bu ñu denc bien amuñu ay bien loolu dañ koo wax noonu bien parti yi dañ koy jaay nañu jaay amuloo siège siège bi du place u Atepa la ba ñu lakkee suñu siège ñëwuñu ci place u Atepa nekk fa place u Atepa la ñuy jaay lu ñuy jaay ay chaise amuñu sax ay chaise te parti bi amul dara loo xamante ni lu jeexul jógu fa lu jiwul jeexul jógu fa mooy mhm. tey jii bu ñu jëloon un milliard parti bi. Mm-hmm. ëllëg suba nit ñi mën nañu jox ñu un milliard ci beneen anam ndax nit ñi seen xol li ci nekk mooy Ousmane Sonko. Mm-hmm. keppaaru Ousmane Sonko laay wax waxatuma Pastef xam nga fii laa toog dañ ma jox sax raison. Mm-hmm. man fii laa toog man leen la personne de Ousmane Sonko et sa crédibilité dépasse nos frontières et dépasse Pastef. ñaata nit ñoo may woo ñu nga xam ni jënduñu carte Pastef ki jënd carte mooy militant. Mm-hmm. am ñu bare boo yi yëpp kenn amu ci carte te pourtant Pastef la ñu bokk. Mm-hmm. c'est-à-dire la personnalité de Ousmane am na ñu nga xam ne xamuñu sax Pastef li ñu xam mooy Ousmane Sonko notre modèle social noonu lañ ko tëggee Abdoulaye Wade dépassait largement le PDS donc mu ñu tasee Pastef mooy tas nañ parti bi waaw. loolu. amul benn impact mais bu fekké tas nañu parti bi. est-ce que di ngeen amati déjà doole bi ngeen amone pour mëna dem ci ay présidentiel comme ni ngeen ko waxé mais bu fekkente ni candidat indépendant ngeen di wut. déggulo mané la candidat bé ëpp doole Pastef nañu nañu nañu tas doole ji xam nga lan lan lañ mëna def mu am impact moy ñu fexé ba ku nekk sa xol Ousmane Sonko bi ci nekk ñu ñëw génné ko ci li ma doon wax état d'esprit kenn mënu ko dindi ci nit. Mhm. xam nga da ngay nekk fii nit ni nit mi ngi souffrir fekk nit koku mi ngi sante yalla mo la gëna sante yalla fouf mais yow da ngay gis na le nga ni mi ngi souffrir lu tax état d'esprit la la mu gëm rek lay dox gaa li ñu gëm moy patriotisme li ñu gëm moy changement li ñu gëm moy Ousmane Sonko li mu gën gëm moy ku juk ku am fulu ku am fayda ku am fit ku am ngor alors naka ngeen nar organiser wu en ce moment pour jéem combattre li nga xamanteni ni moom moo ci seen kaw muy ñaari décision yo xamanteni même jour lañ koy jël lan lañu combattre décision bi nga xamné euh, dañu koy yobbu placer ko mandat de dépôt. Mhm. lolu décision la bu nga xamné sénégalais ñoni Ousmane Sonko kenn du ko jàpp. loolu du Pastef. mais tay ñu japp ko. dama bëgg ñu jël Pastef tek fe japp japp japp mën nga japp 2 jours mën nga japp 3 jours mën nga japp 4 jours mën nga japp une semaine. c'est-à-dire japp bi du yàgg kenn du ko jàpp. kenn du ko jàpp mooy du yàgg prison. Mm. lolu lu wér la. c'est-à-dire dafa am lu nga xam ne mais fan ngeen teg du yàgg prison déjà. parce que deful tara. Yalla dafa ni li moy deug li du deug hmm dafa ni deug lu mu yex yex fen du magat deug da fay màggat lolou tax man la lu mu gàtt lu mu gaaw lu mu yex yex ak lu mu gaaw gaaw dañ koy génne mais et puis japp génne ci tew.

mais demul jigéen soor gars yi fal ko ca kaw. Mhm. loolu moo leen tiital. est-ce que benn parti mënul jóg fan yee passé déggoo ay nit ñu jóge fee yore seen parti. Mhm. dajaloo ñoom ñëpp ni dañuy investir Ousmane Sonko. Mhm. ñun ñëpp. mais gis nga ko. déjà bu bu bu ni jug ci lool déjà gis nañu ni euh, verdict bi bi bi bi au mois de de juin taxone na population bi génn taxone na jeunesse bi génn déjà ñu baree bari génn ci ay leader mais cette fois-ci ñu gis le pire mo commencé di am ñu mettre Ousmane Sonko sous mandat de dépôt réaction bi ñu amoon amatuñu ko lan mo koy expliquer. suñu borom paré na dem. Mhm. dafa am looy def am loo ca jublu. Mhm. yàlla ni loolu du am mhm. ñun dañu gëm suñu borom ba pare di étudier mhm. ay psychologue la ñu nag def nañu trente ans de psychologie mhm. boo junjee wax rek xam nañu foo jëm boo junjee jëf xam nañu foo jëm mën nga am loo junj am loo ca bëgg am loo cay séenu effet contraire am cest ñu ngi ñaan suñu borom jàmm am ci réew bi ñu ngi ñaan suñu borom deux mille vingt-quatre président Macky Sall jeexal vingt quatre février joxe leen ngay dem yoonam génn génn bu rafet bu ko defee accompagner ki fi nekk kooku bañ a def erreur yi mu defoon loolu la ñuy ñaan suñu borom ñun ñaanuñu suñu borom ay dee ay moor ay kaw ñaanuñu ko suñu borom kooku patriote du ko ñaan. ñun ay patriotes pourtant Ousmane Sonko waxoon ni bu fekkente ni demul ci élection présidentielle yu 2024 kaw ma kaw mën na am ci réewum Sénégal loolu sax bokk na ci li taxoon ñu daal di interdire investiture bi nga xamante ni yéen a ko doon wàcc ci stade ba. Ousmane Sonko loolu c'est un constat. Mhm. nga xam ni man def naa ko keneen def na ko mu wax ko. Mhm. mooy am na dayo bu nga xam ni. Mhm. am popularité bu dépassé popularité président Macky Sall mooy lan. xam nga popularité moom dafa neex. Mhm. xam nga bu fekkee ni kii opposition la maanaam amul benn moyen ay moyen sax dañ koy contrôler parfois sax pour mu fay facture dafay am problème. Mhm. yow nga yore ay milliards yore ay ministères yore ay direction yow nga dem ba boo waxee population ba kat nee nga du ñu la dégg. Mhm. nee nga kële la ñuy dégg. waaw tee nga démissionné est-ce que amati na nga crédibilité ci réew ma yow la ñu fal. xanaa bu Ousmane Sonko ni woon insurrection sax boo ne deet bu insurrection am xanaa kon kay yow lañu war a topp waaw lu waral nga ni bu fekkee ni yow wax nga ni ñëpp nañu jaar ci yoon ñëpp nañu liggéey Ousmane Sonko ni bu kenn liggéey ñu topp Ousmane kon kay génnal jógal sa place nga bàyyi Ousmane Sonko mu toog mbir ma dox ndax kii gouverne dañ ko war a déglu dafa war a am euh, crédibilité aux yeux des population manque de crédibilité boobu nga xam ni dafay dem président ma Sall mos na ko wax ba ñuy jël réew mi ñoom. Mm-hmm. nee na woon moytu leen de nañu bàyyi di former ay portable bàyyi di am un comportement arrogant bu nga xam ni nit ñi dañ ñuy jéppi nañu bañ nguur di ñu jey ba nit ñi jéppi ñu loolu dafay am ci nguur te Sénégal a ci raw Sénégal boo fi nekkee buur wala nga nekk président de la République jaaral ci yoon tegu fi nga war tegu waaye surveiller sa arrière surveiller ñuy ànd ak yow. surtout vous impliquer sa belle famille c'est extrêmement important on a eu l'occasion de vivre ce qui est Karim Wade. mais président Macky Sall lan la ci dossier bii actuellement. dossier ban. bi nga xamante ni moom moo daal taxi bo dugg ñu ni président Macky Sall mo wara a indi jàmm ci rew mi xam nga lutax mo mhm. fi wara a indi jàmm bu ay amé dañ naan mom la denk nañ la rew mi tu es garant de la paix et de la sécurité. yow de toog nga benn bés nga ni bokkuma élection wooy génn naa. mais lii décision de justice la ñu gis démb. ban ban impact la ci am. attends ma expliquer la président nga yow. Mhm. nga ni yow tey bokkuma élection nga xëy suba jàmm am ñëpp di liggéey nga ni Ousmane Sonko du bokk élection. nga mhm. xëy suba coow am. waaw doo def la des choses nga bàyyi naan Ousmane Sonko mii ngay acharné wu ci moom nga bàyyi ko bu fekkee justice bi la nga tere leen. bu fekkee sa ay njaboot nga tere leen ni leen kii sénégalais la comme yéen la ngeen fi am la fi am dama koy mettre au même pied d'égalité que yéen man du ma leen jox biberon ngeen di ko 2012 ba 2019 ba 2023 ma continuer dama leen di sevré dem leen ngeen bëre ji bëgg bëre bañ bëre kenn du tànn ki ngay bëreel loolu la chef d'état non le posture boobu bëgg suñu président Macky Sall taxawee parce que gars yi dañuy bëgg di làqatu ci moom di def yi ñuy def te loolu baaxul. déjà ban ban moyen ngeen bëgg a utiliser euh, comme je disais tantôt maa ngi doon expliquer ma ne mois de juin gis nañu euh, envergure bi affaire yi amoon euh, cette fois-ci gis nañu ni. peut-être mois de juin dernier gis nañu ni bi